ma ni ko ak yow mu ni ma déet bu ma ci boole ma ni ko akay ah man xam naa loolu yàlla dogal at yi yépp bi muy laata faatu waxtu wu nekk dama koy faral di gis ci géntu yoor yoor su ko defee na ma daan dimbalee boobu waxtaan moom lay continuer toujours ci gént gi kat mais toujours fi ñuy joxante rendez-vous mooy kër soxna sukkay na lii maam sukkay ne lan ko daan wooye ndax sunu maam la mais daal tegle naa ay at di ko gis ba ci bu mujj bi ma ñëw am ku ma ne a ah, tey da nga xaw naa ji ma di ko déedéet ab fajara ngee soog a jot ci gént gi ma ne ko négal ma seet ba xam cheikh a ngay ñëw la ñëwul ma génn nag seen ko muy dem ba tolloo kër góor gi a Gueye góor gi Ibrahima Gueye ku bëggoon alquran la ma seen ko muy dem nag ma ne ah duma ko déranger na bàyyi comme tey daal tardé naa ko mais ci ëllëg sa lañ ko tàggee yàlla xam na ko waaye ku yéeme la ci xam kër gi ku yéeme la ci xam kër gi fan yële nag ñuy werante ji ci benn jigéenam ndax sëriñ jóoba dafa am benn doom bu jigéen bu ñuy wax Sadiya Diop te